ngeen jëf mbokki internet aloo Sénégal tey boo leen gisee fi ñu toog suñu toogaay ak suñuy kàddu wax ni mu jógee ngeen xam ni am na lu ñu dab mu doon tiis mu doon nakar mu doon loo xamante ne nii ñu ngi koy dund ñeenti fan ba léegi. waaye nag sénégalais yëpp dañoo toog di laaj naan ana ki nga xamante ne nii tey mooy kilifa gu mag gi daan wax ci fi nga xamante ne nii mooy Allô Sénégal di sëñ bi di Cheikh Ass Barham borom Lijaaba fu mu nekk. mu duggoon xel wa moo taxawoon yëgul li nga xamante ne nii mooy xew-xew bi nga xamante ne nii moo ñu dab ñun mu doon loo xamante ne nii tey njëkk rek lañ ciy ñaan ki nga xamante ne nii moom lañ ko moom lañ tooñ di euh, Mame Mbaye Niang équipe Allô Sénégal gi yëpp di rafet njot rek ni kàddu yi ki nga xamante ne nii mooy sëñ Ass Barham bu ci noppee amaana xel mën na dal ndaxte moom lu mu wax lu nekk rek gis nañ ni ci ci yoon bi la koy teg te day am moom mooy vaar waaye kenn du ko vaar ba tax na tey ñu seet si ko ni ko sëñ bi nag faw nga génn waññu wan ñu yoon waaye wanaale yoon képp koo xamante ni tamit mooy yëngatu ci wàllu média moo tax tey suñu teewaay fii laataa ñuy xuus jëm ci kàddu yi nga xamante ne nii moom moom la war a tàllal loxo ñaanal ñu ko ci li nga xamante ne nii mooy Mame Mbaye Niang ak gouvernement bi ko sekk dañ koy bàyyi moom sëñ as Barkham mu nuyu mbokk internet Allô Sénégal yi ñuy seetaan si loolu muy sànni kàddu ñaan pour ñu libérer ñi nga xamante nii ñoom lañ téye jamono ji ñu toll di waa Allô Sénégal sëriñ bi kàddu gaangook alhamdulillahi bi nixmatu tattumu salixat hmm. wasalaatu wa salaamu ala mawlana hmm. wa aw jëddani aqan li jabari kasri fa inna ni wakirlu sirri sirri yàlla daf ñoo amal hmm. pour ñuy daj damm damm jaam yi damm damm jaam yooyu hmm. du tànk du loxo hmm. du nopp waaye doomu aadama bu nekk ci jafe-jafe nga daj damm dammam fajal nga ko damm-dammam moo tax nitu yàlla bi ne aw jëdd ni àqan li jëbëri kasiri fa na nii wa kirlu sirli sirli tey nitu yàlla ak nit ku baax loolu rek lañ koy doyee am sa soxla am sa jafe-jafe mu ànd ak seeg yow ba jafe-jafe bi jeex nga sant yàlla suñu borom nekk ci alxamdu mu ismulaay asam ñu ngi gërëm Cheikh Ahmada tiijaan Serif radiyallahu anhu naan jërëjëfatee Cheikh Ahmada Tidiane Serif radiyallahu anhu jërëjëfatee mhm. mhm. Cheikh Ahmada Tidiane Serif radiyallahu anhu mhm. jërëjëfatee Cheikh Ahmada Tidiane Serif radiyallahu xat mil wilaatu Muhammadiya borom anna rajuli xa min xaafin ilaa xaaf borom kat miya xat miyatu jël naa cheikh jaarale ko ci population sénégalais bi nga xam ne ñëpp ñoo ngi déglu émission bi jaaree ko ci suñ kilifa diine yi nga xam ne ñoom lañ am ñooy sagg réew mi tàmbale naa ko Touba bi nga xam ne xalifa bi sëñ Muntaxa maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam bu baax a baax a baax sëñ Mbay Si Mansuur nit ku baax ki kilifa gu mag gi di xalifa général de Tidiane maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yokk ko wër jógee naa fa dem ki fa mu bokk muy Cheikh Maay Ibrahim nga xam ne lépp lu faydu bi tolloon yokku na ko ba mu yegg si fi mu toll dem cena ba laayeen omariyeen képp kuy jullit ci réew mi di sénégalais Ass Barhama nuyu na la bisimilah bisimilah sëñ bi kàddu yi rafet na waaye tey boo gisee suñu jotaay dafa wute loolu ak jotaay yi nga xamante ni daan nañ ko sékk ak yow sa jëmm ji dëgg la sénégalais yi nag ñoo sàkku jotaay bii tey parce nag dañoo gis ni ba ba léegi yaa ngi wax. Mm-hmm. waaye nag tey dafa jot sëñ bi. Mm-hmm. ñu ñëw seet si la pour nga yëkkati ay kàddu yu jéggal ñu ngi tuub sax parce que dañ la fekkoon nga dugg xëlwa waaye dañuy rek faw nga génn mën a wax. ci ñun tamit li nga xamante ni mooy combat bi ñu porté boobu ba léegi parce que boobu ba léegi ñu ngi jël ay direct ay live di ko def ngir jéggalu parce que nag ñoo tooñ sëñ bi ci tooñ googu moo tax ñu ñëw di ñaan yow it nga tàllalal ñu loxo ki nga xamante ne nii mooy Mame Mbaye ak ñi ko wër pour mu dindi li nga xamante ni nii mooy plainte bi ba ndawi Allô Sénégal yi nga xamante ne nii kóllëre képp lañ sekkoon ak sa jëmm ji ñu mën a delluwaat ci seen liggéey sëñ bi kàddu yi nga war a mën a sànni ci wàll bi ana lan lay doon. alhamdulilah ñu ngi santaat yàlla. Hmm. beneen yoon di wax ne jullit. waaw ab jullit. Hmm. mooy mbokkam. dëgg la. te sa mbokk jullit bu nekkee ci jafe-jafe. Hmm. yow jullit war nga ko mën a taxawu ba mu génn ci jafe-jafe. rawatina sa mbokk jullit bi nga bokkal dëkk ñenn ñi nga bokk ñoom koñ ñenn ñi nga séq ak ñoom liggéey ñaari sit maanaam citoyen sénégalais yu jotee benn bi di citoyen sénégalais di ay jeunes yu yoo xam ne dañoo yor seen sit internet joteeg beneen citoyen sénégalais bi nga xam ne c'est ministre de la république maanaam boo xoolee ñaari jote yooyu mm-hmm. moo waral sama génn mhm. pour leeral ñaanaan njekk ci diggante kañ tooñ ak tooñ macha allah ndax dama foog ne xam ne dañoo dem ci justice mhm. ñu nekk ci médiation boo xam ne mhm. fii ñu toll li tax ma génn dama jàpp man ne médiation bi dafa échoué parce que média médiation bu amoon maanaam tey man duma génn di wax ndax boo xoolee médiation bi amul ba ñu jàpp ñi nga xam ne ñooy xale yi. Mhm. Euh, li tax ma ne wax loolu nag mooy euh, ñi may waxal ak ñi may ñaanal. Mhm. maa ngi koy tàmbalee ci son excellence monsieur le président de la république du Sénégal. Mhm. son excellence monsieur Macky Sall. ku baax ku bëri yërmande. ku ma yàgg di tagg man. ci ay seeni émission ba ñu ci bëri. sax di ma woon ne ba na nga far. tàmbale ko ci moom di ko ñaan njekk. Mhm. jóge ko ci moom di ñaanal njekk premier ministre am bi nga xam ne mooy Amadou Ba. nga mhm. xam ne. sama digganteeg moom ñu bëri xam nañ ko. ci lu baax li may wax ci moom. lu mm-hmm. rafet li may wax ci moom jàppale ma koy jàppale ci yu bëree bari mm-hmm. ma jógee foofu dem ci ministre de la république. muy Mame Mbaye Niang di nit ku baax koo xam ne mosuñ côtoyé ma ak moom. Mm-hmm. mais je sais que ne nit ku dëggu la. ku am xam-xam la ndaw la. bu liggéey ci Sénégal loo xam ne ba si ay sëtaatam. yaa maanaam loolu dootul dëñati. Euh, boo xoolee nag la ma ne ñàkk médiation euh, ci wàllu euh, li tax amul mooy mm-hmm. jàpp giñ jàpp xale yi. xale yi dañu doon xale yoo xam ne. Mm-hmm. maanaam dama doon liggéey ak ñoom ay année dëgg la année yi may liggéeyak xale yi. Mm-hmm. liggéey bi yàgg lool may génnee samay xam-xam ci réew mi. di ko tasaare. ma siq ak ñoom jàmm depuis des années xam leen bu baax. mën naa si citer Mañang Lamine Moussa. d'ailleurs Moussa. sama dëkkandoo la fii ma dëkk ci sama gox. lamin ku ne xam na sama digganteeg moom. waaw ci samay révélation yi may def. ñëpp ñuy seetaan xam nañ sama diggante ak Lamine. Mm-hmm. Mañang moo tax ma xam leen. Mm-hmm. xam ñoom lamin xam ñëpp. Mm-hmm. kon maa ngi jaaree ci maanaam groupe Allô Sénégal. man Cheikh Ass di ñaan njekk ministre ministre la République mooy Mame Mbaye Niang mu jéggal. Mm-hmm. ndax man xam naa ne dañoo tooñ. Mm-hmm. nit nag bu tooñee. Mm-hmm. ba nangu ne moo tooñ. yow mi nga xam ne yaa koy ñaanal njëkk da ngay nangu tamit ñoom ñoo tooñ ba pare. nga ci biir seen tooñ. nga ñaan njëkk ci tooñ googu. waaw sëñ bi may fàttali rek ni juróom benn si ñun lañ jàpp. juróom benn si ñun lañ jàpp gannaaw ñi nga tuddoon muy Mañan di Lamine ak ki nga xamante ne mooy Moussa am na ñeneen ñett ñoo xamante ni tamit ñu ngi leen làkk foofu ne nga xamante ne nii mooy ca dakaar mm. kàddu yi nga xamante ni nii war nga ñu ko war a mën a amal ci doxalinu ndaw ak comportement am ndaxte ñag mhm. jumte du wees te ay ndaw lañ te reconnaître nañ ñoo tooñ sëñ bi mhm. say kàddu lan lay doon foofu euh, kàdduk sant yàlla mhm. di wax ne euh, heure de la jeunesse parfois day dal ndaw amul kenn ci àddina ci ndaw bu dund ba réussir sa àddina te amoo heure de la jeunesse parce que ndaw Hmm. football jeunesse bi day daw ci deretam jàpp na lu mu jàkkaarloo rek. Hmm. mën na ko maanaam euh, dóor mu daanu. loolu waral erreur bi am d' accord nañ ne erreur la moo waral may lancé message bu foor bi hmm. di bëgg mu dugg ci kilifa yëpp. képp ku ci man dara rek. nga def ci say jéego ngir sama jëm ba xale yi jóge fañ jóge fañ nekk ne. macha allah ndaxte xale. Mhm. parfois nag dinay dugg ci loo xam ne ëllëg dina dem ba ci biir. Mhm. mu xam ne lii erreur la. te yaakaar naa nag ne. Mhm. ñoom juróom-benn yëpp lii na leen servir leçon. pour beneen yoon. parce que xale. dafa di ànd ak mag. Alioune xale. xale dafa di ànd ak mag. mag bi di ko dimbali ci yu bëri. parce que média dafa garaaw. te information dafa xaw a doy waar. leen di conseiller. te mm-hmm. à partir d'aujourd'hui dinañ jël ay initiative yoo xam ne. Mm-hmm. danañ leen couvrir ci yu bëri yoo xam ne. Mm-hmm. mu ngi doon am ci seen télé bi ndax liggéey lañ seq waaye naam. li am nii bañ a amati. macha allah parce que dafa am si jamono yi buur. ay ndaw yu nekkoon daan troubler. période boobu lool. période ay mag di leen jàppale. ba bés buur woo leen. na leen damaa bëgg ngeen rayal ma mag yëpp ñu leen di jàppale. ndax mhm. buur mënutoon si ñoom dara. ba yàlla defee mu ndaw yi na leen ray leen magu dëkk bi. xale bu intelligent bu muus si biir xale yi. Mhm. dem jël benn mag bu am quatre-vingt-dix-neuf ans ko. Mhm. ñu rey mag yëpp. ba yàlla dogal buur waat leen na leen rey ngeen mag yëpp ñu ne waaw buur rey nañ mag yëpp. mu ne kaa leen nag ngeen tabaxal ma état si kaw jaww ji wala ma rey leen yéen tam yéen ñëpp xale yëpp jaaxle di pëtëxu ñii di daanu ñii di daw. Hmm. ba yàlla defee euh, mu ne leen dem leen ngeen xalaat ci vingt quatre heures ngeen ñëwaat xale ba dawaat sa mag ba mu ñoo ne ko maam mu ne ko am ah, mu ne buur nee na ñu tabaxal ñu état si kaw. Hmm. mu ne boo demee nee leen ko jëlal parole yow ne ko. Hmm. na def fondement ngeen door a yëkkati. bañ demee jàkkaarloog buur rek xale ba jël kàddu wax loolu rek buur dafa jóg taxaw ne am na mag bu deewul kon eh. mag ban naa bàyyi ci réew te Aliou mag bu la mag mm-hmm. même bu dee ñaari at mm-hmm. euh, jox ko cër ak respect dafa am solo ci xale bu bëggee gudd fan dëgg te ndaw liñ koy reconnaître ci dundam ak réussitam mm-hmm. mooy mu fonk ay mag di di di di di kutuwaay ay mag di ànd ak ay mag ñu koy dimbali ci yu bëri. waaye yaakaar naa ne. affaire de euh, erreur kese la de la jeunesse. si te lii dootul amat amati parce que xale yoo xam ne xam naa leen ci seen yar. dëgg seen teggin. Mm-hmm. seen respect gu ñu am ci doomu aadama yi. macha allah te dama yàpp ne. Mm-hmm. première fois la am. waaw te ne leen servir leçon. Mm-hmm. te yaakaar naa dootul amaat. kon man ci sama kàddu. ak kàddu koo xam ne yaa ngi nekk si site bii. Mhm. di kilifa. Mhm. tey jël naa kàddu sa si sa boor. Mhm. ñaanal lañ njëkk. ministre la république may ma may ma maa ngi koy ñaan yàlla. mu jéggal leen te yàlla tax. parce ay xale yoo xam ne lañ dañoo nekk di liggéey. seen i yaay ak seen papa yaakaar leen. ñuy contribuer ci réew mi dëgg la erreur am na. waaye niñ leen baal ci benn yoon bi. te ñu bañ koo defaat jërëjëf. jërëjëf euh, mi ngi ko mbokki internetu Allô Sénégal mu doonoon ki nga xamante ne nii moom mooy kilifa euh, kenn dootu ko présenté nag ndax ay kàddoom ndax ay vaaram ndax ay intervention ci biir réew mi mbooleem réew mi xam nañ ko kilifa bi si bi si mag ba ki si gën a tuuti xam nañ dayo bi nga xamante ne nii sëñ As am na tey moom lañ seet si woon ngir mu yëkkati kàddu yi euh, yi ñaan ki nga xamante ne nii mooy Mame Mbaye Niang ñu reconnaître ñun waa Allô Sénégal ni ñun ñoo tooñ ki nga xamante ne nii mooy Mame comme ni mu ko waxee sànq ci biir waxam mag la te mag nag des nañ koy jox cër moo tax it jox nañ ko cër bu baax a baax a baax ginnaaw ñu reculer waxaat ni Mame Mbaye ñu ngi lay jégalu ñuy fàttali rek ñu ndaw ñu ba léegi ñu ngi ñuy téye ñi ngi ca tribunal ba ñuy waajal amal seen atte waaye nag euh, ñuy fàttali rek ni tamit ay ndaw lañ yoo xamante ne nii ndaw yu am jom lañ ndaw yu am fulla lañ ndaw ñu bëgg seen réew lañ parce que boobu ba léegi ñi ngi contribuer ci li nga xamante ne nii mooy di def ay social waaye tamit di jàppale ku ci nekk ak sa famille mu yoo xamante ne nii ni mënu woon ñàkk Cheikh am yëkkati ko ñu ngi leen jaajëfal di leen wax dig daje ba ëllëg incha allah.